moom nag nekk na koo xamante ni kenn dootu ko laajte watina nag ci wàllu làmb muy Leuz ñu gën ko xam ci làmb lok Leuz ginnaaw bu ma la nuyoo bàyyi la nga nuyoo mbokk internet Dakar plus. waaw salaamaaleykum salaamaaleykum monde entier salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum ñëpp ak lu képp kuy déglu scène bi rek làmb nuyu na la di la ziar di la wax am nañ gan ñoom waa seen bi hop hop hop salaat ak ñax bokkul bala nga koo xam nga bineegar du ma bu may dem du ma ne kenn bul ñëw mm-hmm. waaye ku jooy dëpp. waaw waaw ate saa yoo demee bay jolli rek kasa kaw ngay xëcc mais kenn du ate di xëcc ki si suuf ndax mën naa gaañu waaw doole yemut. comme ni ngeen ko gisee rek toujours égal à lui-même moom nee naa leen moom saa bu jàkkaarloog internet rek ñu kontaan euh, mais bu ñu la nuyoo solo macha allah mais gis nga li nga xamante ni temps yi moom moo nekk si dëkk bi muy làmb ki nga xamante ni moom moo di Ama Baldé ak Modou mu nekk loo xam ne débat yëpp ci ci loolu lay tourné naka nga jàngate lamb ji balaa balaa ñu xuus ci li nga xamante ni moom moo di waxtaan bi. waaw dañ siy waxaat rek waaye làmb ji ba mu génnee ba léegi ñu ngi siy wax waaw mais wax waxaat du bëri wax quoi ñi xamul woon xam ñi ñi dégluwul woon dégg te tamit nit du la du la jël si ba pare yàq ay yitteem defe naa xool fi ngeen jógee mu sore man sama ngor muy moom mooy waxaat gars yi ñu dem moo tax il faut ma génn génnaat génnaat parce que lu ñëpp bëgg boo ko ajee nit ñi rek ñu bàyyi la la ko fa mais lu ñëpp bëgg nit ñi di la sentir tamit génn rek nga wax leen li am solo ak li siy yeete làmb ju nar a neexee nii amul fenn làmb ji kañ dama lay laaj ba xam dikkaat na yow mi ñëw gan wala làmb ji dikkaatut. làmb ji moom fi ne nii moom wax dëgg yàlla waaye mën a wax moom mooy moom ambiance su làmb ak ni mu meloon ak li nga xamante ne moom mooy fugg bi sinus bi am tout le temps ci làmb ji gisaat nañ ko. ñoom làmb def nañ si def naa si jéego wala defuma si jéego. baax a baax a baax waaw kon Sénégal nu nañ loolu. waaw loolu moo am solo parce que nit boo ko waxee dëgg ñeneen ñi koy déglu dañ lay naw tey fu ma si laal rek nga ne ma foofu nga far waaw parce que liggéey bi moo am solo parce que tey jii boo liggéeyul si kañ naan ba nga ba tañ na te ñu xam foofar rek kon liggéeyoo nit bu ñu la dee déglu dañoo war a déglu di ree mais kenn war déglu di jooy Sénégal duñoo ñoo commencé wax loo xamante ni ñoom dañoo bëgg dañuy woote jàmm mais booy woote jàmm na fekk nga bëgg jàmm day tax jàmm gën laa yomb mais sooy woote jàmm te bëggoo jàmm jàmm du la yomb waaw te nit ki la muy woote daa war a nekk si xolam mais lës ku ko xam-xam ko si jàmm fo ree kaf ree lamb ji lañ bëgg a dressé ba mu ne cocc boo booy di seetaan naa topp rang bi ñibbi jàmm ne ñooy loolu donc moo des si làmb mais dina neex dina yëngu moom kooku mi ngi mel ne nga rosi sa togg ba pare naan dama koy ñulu foo jaar borom ñulu ko parce que bu ko ñulugul du àgg doole yemut. alors làmb ji nekk loo xamante ni si dafa yàgg a bëri coow dafa yàgg a bëri bruit ban analyse nga am ci coow li nga xamante ni boobu ba léegi làmb ji am na ko dina am am jàppal bàyyil di coow li bëri torop. waaw bu mu amee waxal naa leen si dara moom laay leeralaat nii rek mën na leen ki ko tëgg xam naa ko si yàgg a réglé situation yi demee nii ak bis bu ngandee nii yàgg na koo tëgg jaaxalu ko ñi koy bëri yàgg nañoo bëri bis bu ne jaaxalu leen kon ñun ñuy seetaan nañ xam ne bis bii seetaan nañ bis bu ne loolu buñ ñu ko defee coow du am dara du am te tamit xam ne sportif bi ñoom ñoo siy liggéey ñoom ñoo siy gañe bu fekkee dañoo bëgg sport bi ba di leen seetaan si kon buñ leen ko yàqal di leen gaañal kenn làmb ji di fa yàq wala ñu koy aj wala ñu koy def leen supporter bu ne laa koy yebe fexeel ba sa mbër na nga fa def loo xamante ni kenn du ko aj kenn du ko teg yeneen daan benn CNG du ko yëpp di ko convoqué ndax tey sa mbër day wuyu ji CNG ku xam ne mu toll ku xam mbër xam ne loolu lu metti la parce que xamoo loo fay fekki mën nga fa fekk aj ñu aj la cinq ans mën nga fa fekk alamaan boo xamante ni après sa xol du neex te loolu xajoon na si supporters yi wala mu mën a jënd asiko CNG lekk ko si maali foro balaa caag yéen ngeen xalaat xam ne ku yor saako dugub di dox boo ko bënnee boo demee boo peesee say kilo manqué xaayaan ku dégg séeréer dëgg la alors ki nga xamante ni moom moo di Modou Lo ki nga moom moo di Ama Baldé toog nañ lu mat 4 ans bëreewuñu mu nekk loo xamante ni Sénégal loo xamante ni mun na leen andil ci am li nga xamante moom moo di gàllankoor ci làmb ji mun na feeñ ci biir géew bi sax parce que boo gëjee def benn effet boo ñëwee bëgg a def benn effet boo gëjee compétir boo ñëwee bëgg a compétir day yafe tey Fara Sour boo demoon génn parce que yaa nga bëgg ñëwaat jëlaat scène bi kon dina am neneen noo xamante ni moo nelawoon nga yee ko soo ko deful da ngay sonn mais bu fekkee ne am na leneen loo si fàtte da ngay demaat ba sa kër xam ne yo yow waxuma lii fekk yow loolu sa liggéey la mais munoo boole yëpp indi ko parce que da see gëj mais ki si gëj nag noonu lay wanee si géew bi bu fekkee ne toppul woon ay entraînement am tey coïncidence yi day feeñ si géew bi mais bu fekkoon ne mi ngi gëj na si ba pare di topp ak confiance bu ñëwee intérêt am day bëri waaw loolu tamit yàgg na rek mais kenn ku ne mënoon nga see nax sa morom bi mu yàggee fa nga nëbbutu di entraîner tey la ñuy xam résultat bi ba xam ñii doon nañ liggéey wala doonuñu liggéey waaw am na solo mais tamit gis nga li nga xamante ne moom moo di moo Lo que tamit Ama Balde def nañu li nga xamante ni moom moo di seen open press état de forme ñaari mbër yi lan nga ci mën a wax. waaw wute wute nañ quoi Ama Ama Ama weer la fekk jant bi sowul bul xam ne muy mel sànq bi mu jub see combat bi gars yi dañ ma doon wax Ama poids bi poids bi tey jii ñu ngi naan Ama daa wàññi mais stratégie yam la parce que bu bëggee fekkee daa bëgg a bëri il faut mu am lu mu wàññi am lu mu yokk kee bu fekkee daa bëgg a xeex. il faut mu wàññi bëri yokk xeex parce que kenn ku si ne yaa xam matériel bi nga indi pour décocher sa sa moteuru morom tey ay dépendance lañ ñëw kale bu ne waruñu koo bàyyi dañoo war a indi bagage yu bari moo tax kenn ku ne loo calculer rek après yeneen coach yi dañuy gis leneen ne indil lii léegi coach yi juboo nañ kon ni Ama daa war a wàññi lese moom wàññi na nañ xool lese bi mu wàññi lan la koy dugal léegi Modou Lo moom yokk moo ko waroon yokku na nañ xool Modou Lo yokkam bi lan moo si intérêt kooku dimanche lay leer dimanche nga xam ne salaat ak ñax bokkul bala nga koo xam nga bineegar su ko kii daanee daan ko soo bineegaree benn bi wàcc ba las mais soo bineegaree bu baax bi day wàcc te loo si laal xam ne bii salaat la xoolal bala ngaa xam ne jën ak yàpp bokkul ñu saxal la ko guddi boo si sàqamee xam ne mooy borom hop oh, hop hop man la laamboo bu gaa yi laajtee mais olof yi laa leen di duma parce que tey jii nit day day day wax si média commune yi mais bu paree français lay indi moom la mën mais man bu waxee si média ba pare lu ma war a dagg si français si olof laa koy dagg moo waral nag waaw moo waral gars yi di ko yóbbu TikTok di la may yu neex parce que nit ñi tamit dañoo war a sentir di waxtaan di neex affaire bi foo agréé la man waruma ñëw fii di ñàngal di wax loo xamante ni du wax loo xamante ni du tegu fee lañ lay teg est-ce que kii safa la ñuy wax mais bu fekkee ne da wax loo xamante ni ku ko dégg xam ne lii mën naa ne loolu moo am solo si Sénégal bu xoolal maay gi bu mu la wër rek nga wax li la neex ak nga waxee bopp bu rëy waxal loo xamante ni ku la ko teg nga nangu wala ku ko teg mu nangu mais boo waxee loo xamante ni boo ko tegoon sa bopp du nangu jërut wax wala nga wax loo xamante ni ku ko déglu tamit day xam ne deru Ama yàqu na wala ku ko déglu xam ne deru Modou Lo yàqu na kon dëggal bal boobu bu ko wax wax neneen nu gën a rafete man noonu laa muy rafet saa su nekk rek loolu sax la ñu soxla parce que ki rafetal ak ki nga xamante ne rafetalul mënuñoo bokk benn yoon alors état de forme yi tout à l'heure xuus nga ci bu baax a baax mu mel ni wàññi poids bi nga xamante ne Ama Baldé wàññi na ko ba ñu bëri ni ko waru ko woon def euh, kon waaw si si ah, bi lay ne parce que staff bi ñoo koy sàmm ñooy xool lan moo leen arrangé bëre bi ñoom yóbbu lese bu leen arrangé dañuy yóbbu lese bu leen luur yu arrangé dañuy yóbbu luur mais ñoom ki ñuy bëreel moom tamit mooy xool lu ko arrangé bu dee kàkk ko arrangé mu yóbbu kak bu dee bu dee lese moo ko arrangé mu yóbbu lese mais Modou Lo wàññiwul benn yoon moom dafa gën a renforcer mais Ama bi mu bi mu bi muy ñëw moom Modou kaw gi dafa baax lépp baax mais fan yi bi mu summeeku daa gën a caas mun naa am fatiguement moo ko def mais chaque jour bu noppalu ko day ñëw parce que wàññi mu gën a métti entraînement yokk kon Ama ni ngi si entraînement yu saf sap yenn saa ma dugg si moom ñu xola bu ma rombee ñii ñu ne ma pikin nga faral su ma rombee ñii ñu ne ma Ama nga faral xam nga lu ko waral boo waxee qualité nit su garanté rek dañ naan Fara Sour nga faral du Fara Sour de Fara li mu daj si kër gi muy sëy moom laa wax gars yi rek mais du amuma si intention man li ma señoon mooy ñaari mbër yëpp am jàmm bokk ndey bokk baay xàccandoo dóorandoo que daan keneen ki yëkkati morom mi xam ne moo ko may tey tur wi mu am kii ñàkk na tey mais ëllëg suñu borom da koy may na ko ñëpp yemale si cadre sport mais Ama Baldé li ko waa fansam yi woon yóbbu leen roi des arènes rek la si taamu parcelle li génne waa Modou Lo indiwaat roi des arènes bi rek leen ku loolu nag si yàlla la wóoru nañ ko teg si cadre suñu borom ñu bëree foo ree tuddante ay doom mën na see xaj ndax doomu Ama Baldé ak doomu Modou Lo mën nañoo dem ba nekki gaañan kon ku si waxul lu rafet rek boo ëllëgee di nga si ñaaw xaayaan ku dégg séeréer alors xanaan ku dégg séeréer la ñun nag dégguñu séeréer malheureusement mais euh, dañu gis que Ama mu am excès de confiance ci boppam ñu bëri yaakaar ne que dafa jëmee Modou Lo ba mu ëpp est que confiance bu bëri boobu noonu mënu ko indil benn gàllankoor ci làmb ji. non noonu la mbër boo ko ñemewul doo ko daan mbër da koy ñeme déranger ko wax li muy bañ moom la Ama def Ama ba léegi wàccul yoon bi xam nga la moo tax wàccul yoon bi moom li ko war ci sport lay def jaralu ko cent franc wax na dëgg pour lan kooku bu ko defoon ñu xeeb ko mm-hmm. tey benn benn mbër mën naa la see jox exemple bi ñu ko daanee mu ne diw a daa xeex ñu bari mere nañ ko mm-hmm. parce que daa wax qualité yi rek parce que ku la gañe si xeex am nga droit ni diw mooma daa ko xeex ah waaw loolu la waxee rek mais tey ji ama su waxee ni kii jaralu ko cent franc ñun sportif yi dañuy dégg ne waxu mbër la rek waaw waxu mbër nag moom waxu mbër nag moom mun na mu mun na déroger mais déggkat yi ñoo koy dégg dégg daaj parce que nit bu déggul daaj du neex a du neex a dëbbeel quoi mais nit bu déggee daaj boo dëbbee rek bala ngaa daaneel mu aw la xaayaan ku dégg séeréer. alors ñu gis li nga xamante ni moom moo di supporteru Ama Baldé que supporteru Modou sax euh, parfois souvent dañuy wax ni que si làmb ji dañuy bàyyi ki nga xamante ni moom moo di Ama Baldé mu assuré bi fo bi bi ak yooyu noonu euh, par la ki nga xamante ni moom moo di Modou moom moom mooy bëree bëre bi loolu noonu soo ko déggee naka nga ko analyser. non soo ko bàyyi mu jël ndawal gi bu jëlee ceeb bi nga waaye di de hmm. nañ bokk si animé bi. ñoom it buñ ko jëlee mu neex loolu laa leen conseillé waa parcelle mais buñ ne Modou Lo la ñuy buñ ne Ama Baldé la ñuy bàyyi ak fecc meeg yooyu déedéet lu kenn di bàyyi kenn léegi ma gis Modou Lo ko mosuma kaa gis mu répété ko xam naa ne li ma ko ne woon Modou Lo benn tuus am nag moo waral mu génne lu bees mais génne na lu bees tàq parce que tey dama soxla yu bees yi parce que yu bees yi moom lañ la mën a woyal mu dem TikTok parce que galañ bi tamit si la booy mën a déglu mbër bu déggul galañ mënut a dégg bëre mbër mën na am mbër yu déggul galañ mais xam nañ bëre mais am na mbër yoo xam ne dégg galañ mu dañuy njëkkee ba pare a dégg bëri parce que ki dégg galañ a neex a jàngal bëri parce que fecc moo gën a métti bëri dé neexul te dégg nag parce que kuy tëgg te xamoo ko kan lay saa yu la appelé nga xam ko kon ku la xàcc contre ko sa bët da ngay daal di moo tax boo déggee galañ pour nga dégg làmb day yomb Ada Fass de barki démb bi mu ñëwee lu mu génne dafa neex ah nee naa leen ku si daan nee ko ama rek la ñuy topp gud gud gud gud ah loolu neex Ama la ñuy topp ji loolu la Modou di bañ a dégg buñ paree gu gu gut gut bu dee Modou Lo ngay supporté nga ne Modou rek la ñuy topp gut gu bëgg après muy daw te bu dawee bu paree sax day daw parce que loolu moo neex parce que tey jii quel que soit alpha mooy ku si daan boo paree dañuy delluwaat vaar kana woon jaraluma 1000 francs dañ koy delluwaat vaar mot loo mëne woon géew ba la mënee bu ñu ko daanee ñu ne ko foo mënee si géew bi kon loolu yëpp da see ay ñoom làmbaloog ñu si wax tamit dañoo ñaan yàlla ñoom it ñu génne leen si vaar boo xamante ni vaar bu mucc ayib la parce que liggéey bi moo tax ñu koy teg si yoon kenn ku si ne sa intérêt ñu jox la ko mais ki si daan suba yàlla rek moo ko xam ñoom ñaar ñëpp yàlla na leen yàlla may jàmm may waa làmb ji jàmm ñu feer pele ko xajal gono yi mais làmbaloog mu wàcc si biir esaat mbër yëpp ay bëree hop hop hop sas naa leen. parce que lu naa leen sama première vidéo parce que nga sa Pikine buñ ba sa Ama ba Modou Lo lal foofu Ama màgg na xale màgg na mais buñ ko lijjantee làmb mi ko lijjanti tey maa ngi nii di ko lijjanti waaw doole yemut. doole yamul ku ne xam na que la man da nga ko doon nango alors euh, li nga xamante ni moom moo di arène nationale bi ku ne xam na ni Pikine la nekk mais ñu bëri dañuy ragal li nga xamante ni moom moo di problème juddu ci le fait que mu nekk Pikine rek ñii di jógee fi nga xamante ni moom moo di parcelle di ñëw est-ce que yaakaaroo que ni dina am benn incident boo xam ne jur na ko. non ñun ñun nag dañoo xeeb li ñu yor rek mais ñun am nañu ay sécurité tey programme bu ne xamu na fi mais bi ma demee Gambie def jàngat bi rek laa xam ne ñun suñu sécurité nañ leen fonk parce que ñun bu ñëpp yaroo buum yi duñu yor yar te tamit nañu xam ne ñun tamit policiers yi daw nii suñuy mbokk lañ xoolal ñun dañuy seetaan bàyyi leen si biti ñoom ñu toog te pour pourtant ñoom ay dañoo war a seetaan mais seen liggéey moo leen mayul ñuy dem di seetaan xoolal yow da ngay toog moom mu taxaw ba keroog affaire yi jeex ñoom bala ñoo ñibbi def mété en rang kenn ku si la nga yoroon ñu laaj la ko yar leen moo tax ak ñu nangoo am kilifa moo tax ñu naqaree daan ñoom ñoom gémi yi mais di leen masawu tamit ñoom parce que tamit wax dëgg yàlla ñu ñuy aar dëgg neexul yenn saa ñu nappaate si kenn ba nga mer waaye bay weq na doom ja waaye bañu ko waaye la mu def bañ koy nappaaje buñ la ko waxoon danga nga naan déedéet waaw na Sénégal gépp gën a bàyyi yërmande jéem yi tamit dolli si yërmande parce que sa moroomu góor nga koy dóor te xam leen yéen a bokk ndey yéen a bokk baay añ na làmb ji moo ñëw rek waaye boo xoolee yax ba daanaka yéen a ko bokk yenn saa yi policier dóor koo xamante ni billaay bu deewoon du xëy mais xamu ko xamu ko te booy dañoo déréglé policiers yi bu ñu doon jéggal ñun kenn du génn te tamit nañ waxante li fi ne jug da nga leen xas te ñu ngi siy def seen waar tey bu ñu amul GMI kenn du bëri bu ñu ay mbër koy garder kenn du ñëw kon am na lu leen yàlla may buñ ko xeep te ñoom tamit dañoo yor ay jabar yor ay doom yor ay mag tey seen i rakk ngi bëri foofu am na GMI yoo xamante ni kuñ bokkal dëkk day bëri te duñ ko ñemee seetaan parce que fañ leen di teg la te ne si ñëpp bàyyi xel ñëpp wane yar wane teggin bàyyi waa parcelle dugg parce que bu waa parcelle egsiwul kan mooy supporter bu waa parcelle wul kan mooy dagg bi waa parcelle dañ leen di ak seen yoon waa Pikine ñu bàyyi leen seen yoon kenn ku ne yar yóbbu la fa jàmm ni ñooy Sénégal xoolal stade bi laa bëgg muy riir gars di sentir riir bi ku mën supporter supporteel ku mën gàddu biteel gàddul biteel ku mën wax bàyyi ko mu wax parce que ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ndam li jugul lu dul Sénégal ñu si ñëpp bàyyi xel. alors li moom moo di làmb ji yàqu gi mu yàqu mun nañ ko wax parce que lu luñ mën a wax tamit làmb ji changement bu rëy am na ci mais ñu bëri dañu jàpp ne que li nga moom moo di pay-per-view bokk na ci li nga xamante ni dafa yàq làmb ba tax na suñu yaay yi nga xamante ni ñu ngi ci kër ko problème la loolu noonu naka nga ko jàngate da boobu ak ñoom wala dafa nekk loo xamante ni mënatul la ñàkk ci làmb non ñoom biñ ko defee léegi lim leen ray sponsor ñëwatul kuy publicité ñëwatul boo ko defee pay-per-view yaa koy wéete rek ku jàmb sa daqaar paccal sa lengoom ric kaani boo koy naan kenn du la téye kenn du la téye ñoom bu ñu fekkee ne tey ji ñi ngi def entracte xam ne li leen entracte di entere tey benn télé doxatul ndax lu ko waral mooy ñañ fay teg dañ fay yàgg te liggéey boo yi tar boo yi am talent yi leen woo affaire bi da ngay liggéey boo bu fekkee ne làmb nga fa yóbbu liggéeyut nga wàcce ko bu keneen ñëwee day liggéey parce que làmb fi bu jóge te ñàkk liggéey ko xañ kon bu ko defee télé yëppay dox mais tele yi da ngay gis koo xamante ni affaire ndono la fay indi da ngay retraité ñëw woowi ko la neex wala nga ñëw plénière ku la neex te amul talent bi nelawul si moom lamb ki ko mën lañ koy jox euh, journal ki ko mën lañ koy jox théâtre ki ko mën lañ koy jox buñ ko defee Sénégal day neex kuy defar télé kuy defar télé lañ koy jox kuy defar terrasse kuy defar terrasse ñaata terrasse fi màgg balaa am sa vingt ans commencé màbb kañ ko jox moo aayut wala mu yërëm poosu maçon ba paro poosu borom kër ga mais boo yërëmul poosu borom kër ga dal ba day yàgg xaayaan ku dégg séeréer. tubaab nee na l'homme qu'il faut la place qu'il faut kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax euh, tamit li nga xamante ni moom moo di euh, ki nga xamante ni sax moom moo di Luc Nicolaï euh, lan nga koy wax parce que tamit làmb ji ba ko daree ba ko daree engagé yàgg na mat na 4 ans depuis boobu ba léegi di dem di dikk lan lan lan nga koy wax moment bi nii. waaw Luc Nicolaï dañ koy ñaanal rek parce que ñun tamit Sénégal ñaanal Luc Nicolaï rek lañ dese. parce que lit bi mu ñëwee ba léegi wàcce na fi hélico si kaw terrain li ma koy conseillé kañ mooy nan la war a dugg see hop hop hop hop li Nicolas dugg si am daa mos a neex jàngal na promoteur yi ba sonn li Nicolas wàcc na fi si hélico takk baas si 18 ans bi muy xeex làmb comme làmb ndok ni mu nekkee si yoon moom bi mu nekkee si yoon ay phénomène la doon indi mais xoolal yàqal ñu ko moo waral ñu denc ko pour bëgg yàmb yàqu léegi naxtaan nañ ba ñu jotaat si ñun dañ ko war a encourager ñaanal ko mu am taw tawféex fekk lépp parce que li Nicolas nag mi ngi bëgg a jëm mag ndax jur nañu toll ñun. kon cër lañ koy jox respecté ko te xam ne xamuñu foo muy jëlee xaalisam te chaque jour mu bëgg Sénégal gépp bëgg kuy bëggal Sénégal nag kenn waru koy sonal ndax saa yoo ko sonalee ñiy war a bëgg Sénégal ñëppay sonn li Nicolas loolu rek lañ koy conseillé mu yombal affaire yi tamit xam ne ñun dañ ci bokk dañ ci liggéey muy journaliste bi muy waxkatu làmb bi ñoom ñëpp war na leen a bàyyi ñu dugg parce que tey ji xoolal ñi may jëwër xoolal ñaata vidéo laa leen tóoral tey bu ma duggee ñoom Farouz dugguñu du ma am lu ma neex kon na ko yombal rek te xam ne benn bis la mu may gaa yëpp ñu dugg gaa yi lu ñu si war a am moom lañ si war a am ni Nicolas yow taalibe Sëñ Faalu nga yow boo mayee gaa dañuy dugg dañuy am bu leen xool ni dañ see war a am yow lu tax duñu fay déedéet yow yaa war a nekk ambassadeur ambassadeur ku ñëw laal parce que loolu lañ lay doyee Sëñ Faalu mooy sa turandoo léppam xaj na si moom kon yombalalal gaa yi lépp yomb barke yonante bi yow doo ko réccu doo ko doo si wéet. dafa mel ni jël na ci ay ay yu metti la parce que tey ji mi ngi naa moom mi nga xamante ni sax moom moo tëgg làmb ji bu tegul ci yoon sax bu ñëwee bu mu dugg. waaw daa bëgg ñëpp nekk si yoon loolu bul ko bañ yow ku ngay dugg yow tegul si yoon rek loolu mooy yoon parce que tey wax na daa seer mën na leen mooy yoon bis bu mag nagu maga siy dee ñu dix ko mais boo nee mille franc booy fees tax ñu naan cinquante mille dañoo bañ booy bagaja ku reer reer bu doo fa dem daf nga ne kuy reer a fonte di nga dem di dugg euh, soirée vingt cinq hop hop hop hop hop ah. alors li nga xamante ni moom moo di àndam ak ki nga xamante ni moom moo di Baye Ndiaye naka nga ko gisee. non Baye Ndiaye fu lu mu ànd moo gën lu mu àndul. waa kër Aziz Ndiaye neexul ba neexul mais ndaanaan lañ. ay ëttu kër sëñ Babacar Si lañ dëkk. ah parce que rek dara maan aram loo kumba caam bëgguma penda ak paate penda xar yàlla bopp coor. boo bañee mbay foo oto boo dugg jàpp si mbay bi boo bañee mbay laa wax avion sax boo duggee ñu ne la jàppal si mbay mbay moo demul benn réew te réew moo dem fekk fa ñu ne la jàppal si mbay waaw kon bu bu nee Aziz la boole ah Baye la boole si affaire yi dafa bëgg moom xale mooy dox loolu li xale bi dox ah dox mais li mag mi dox li Nicolas koy dox te nit boo amee ku lay aw si affaire yi day gën a yomb yow dong àndoo da nga ànd ak caméraman mais bu dee li Nicolas dong la mën naa métti mais bu dee Baye Ndiaye la ko bokkal Baye Ndiaye mën naa def plateau moom mu dem stade defar foofu lool dong lañ ko jëlee me kenn ku ne mën ngaa yor sa bopp de li Nicolas tëgg na ba heure bi bu àndee nit da koy jàppale te àndandoo bi lañ soxla ndax buñ àndandoo dañuy mën a def lu ne mais bu ñu àndandoowul dañuy jaaxle bàyyi leen sénégalais yi ñu ànd peut-être bàyyi sénégalais yi bañ a ànd loolu d'accorduma si ne ñëpp ànd bokk ndey bokk bàyyi xàccandoo dóorandoo ñaari poos yu duun moo gën a neex a demal benn poos bu duun bu jeexee nga noppalu mais bu dee ñaar di nga làmbaat beneen bi muy Aziz Ndiaye ak baa Ndiaye ak nit Nicolas. d'accord mais temps nag nel yi bëri nañ de. waa kër Ama Balde Ama nelu da ko ko romb sax mu daal lay ndel naka nga naka nga gisee ndel yi. <laughs> non damaa leen ne moo bëgg a moo wallaahi mëtta sone PDS moo bëgg a tojaat ko politique bi rek. maanaam karaw wàcc ndel yeeg. booy bi laay waad la may joxaar rek. waaw booy bi daa mel ne PDS mooy bëgg tojaat mooy bëgg tojaat dëkk bi mais loolu nag si wax la mais dégg la laaj mais bis bu prosecteur yi tàkkee nel bi nar na fee def toj bu ko deful si bii beneen bii ñëw di nga gis ni borom nel yi def fi toj-toj. mais yàlla na doon toj dëkk bi lépp baax waaw ama moom bu watoo si nel bi ba pare su paree lañ si mën a confirmer mais ku jëm geer guerre baale benn bal bu bees jarul ngay xas bal bi te xamagoo lu muy indi man lu ma see wax rek damay tooñ ndax Tyson indi na fi ay lugab Balla Gaye indi na fi dabala kon ah, moom bu fi indee nel dañ koy gëm am na yeneen mbër yoo xam ne bu ñu jógee combat duñ nangoo watu waxal tey am na mbër bu jub combat watu nel bu set wicc na si ñëpp bàyyi xel. waaw. ba tey sax dañoo gis ki nga xamante ni moom moo di Modou loo moom tamit mu ñëw keroog ci ci open press bi gàddu ay fulaaram yu jaune ak li nga xamante ni moom moo di blanc mu mel ni kee génn na ci nel moom tamit génn na ci li nga xamante ni moom moo di ay fulaar affaire yi nu mel. non fulaar yi la rek mooy ku si bokk ku ne yaa war a jege Modou ku si bokkul waroo koo jire ñoom ama yor nañ ay morceau amaana yaa ko gisul mais ku si bokk bulus yi base yi fa bulus yi si bokk kenn du la génn gémi du la génn mais lu zone li boo si bokkee rond rond central boobu mu defar yow di nga si dugg mais ku du amul euh, euh, fulaar bi doo dugg si rond central bi loolu kese la mais Modou Lo bu ñuy wax bi open press ba indiwu fa benn mystique bu bu ñuy wax li Ama Baldé dóor ci mystique ci ci ci open press boo xool Modou Lo dóoru ko kon simplement la def mais loolu ma man làmb parce que yàgg naa si làmb ba ama Sène bi muy daan Balla Gaye indiwul si làmb ji ay gàllaaj waaw premier combat bi mu koy daan yaramu neen la ko indee daan ko ñu laaj ko mu ne li daan mbër ma nga ga kon Modou loo bu ko neexee ni li daan mbër ma nga kër ga indi yaramu neen kese. bu ko neexee ba tax na dañu gis ni que nga xamante moom moo di Ama moo gën a mystique si làmb ji pour pour Modou Lo wala nu moom Ama parce que roi des arènes lay jëli day yóbbu lépp bañu si loolu lu mu mën a sangoo na ko sangoo lu mu mën a naan na ko naan parce que li muy jëlee diis waaw jëli ko yombut waaye booy dem loo fàtte dootu la réer gis nga bu ñu ba àgg laamu ja ne ana benn biteel ñu ne fàtte ko kenn dootu ko jëliwaat parce que amuñu jot gi embouteillage bi ko yónni làmb moo neex-neex goo xam ne boo si xasee bu dugg bëggatoo ku la yónni kër ga. mais tamit dañu gis ni que làmb ji fu li nga xamante ni moom moo di bi da cee da cee gën a fës parce que su ma juumul nga xamante ni moom moo di Sa Touba mu wax ni que tout le temps dafay dem Pikine fekk ñuy suul mais lu ñu suul rek moom da koy da koy mu mel ni làmb ji moom day doy na waar daal. mais Faro Sour yow da ngay ñam wala da ngay reer. Ah, woo kañ yow da ngay reer de. man yow saa yu jëlee ma a da ngay tàggatoo yow boo jëlaatee di ma waxaat waaw mais mais mais Sa Touba looloo ko war Sa Touba boo demee sulliwul dara sax mais bata psychologique la bu ko neexee ne li ngeen di suul maa ngi koy gis waaw loolu naxante la loolu bu tojee bopp gars yi man laa bu toju sam bopp ñoom ñoo tala dem foofu di suul mais am na ñoo xamante ne ña ngi sa kër gay bind mais pourtant ñiy bind kenn gisu leen de ñooy suul lañ gis nee naa la stade bi waa Pikine moomuñu ko dañ kaa di tëj kenn waru fay dugg sax te bi jeexul loolu mooy dëgg ndax tey mën nga faa dugg ñu gis la xeex ba am fa rent am ñu naan CNG ñoo jaw ñoo négligé stade bi te du yoon gardien ba koy gardien war nañoo lijjanti fu mu dëkk di man xam naa fi gardien bi dëkk di kii garde stade bi yor caabi yi xam naa fi mu dëkk te lamb dafa garaaw lamb tey ji boo yóbboo sa mbër xamoo ñi ñi nekk lamb di yor mystique ñàkk nga combat bi parce que am na ñeneen ñoo xam ne ña nga fa toog waaye ay mystique la yor mais lamb da nga koy miin géew miin ko min terrain bi min pelouse bi doo ko yóbbu sa mbër xam ne fi nga ko teg baax na mais nga romb koo xamante ni doo ko fa fooge fekk li mu uuf boo ko rombee doo daan kenn xaayaan ku dégg séeréer loolu nag. xam naa suñu ne ndax xam naa ni moom fi ne nii moom moo di open press ki nga xamante ni moom moo di Ama Balde ñuy génne ay nit comme quoi que dañ leen soupçonné que dañu fi indi dara wala dara ak ah di ak ñi nga moom moo di ay journaliste ñu liggéey sax ci ay organe de presse naka nga jàngatee loolu te moom liggéey rek moom moo leen andi woon non waaw jàng naa si jàngaat si mais mais mais tamit nañ xam ne ñoom tamit li ñu leen wax nañ leen ko nangul parce que comme que dañuy làmb am na ñu ñuy tànn am na ñu ñuy baay man si ñi ñuy wax ne la toogal foofu si laa bokkoon waaw doo dugg si laa bokkoon mais gis naa fa ñeneen ñu ñu wax doo dugg mais seen gis-gis moo ko def mais bu doon ñoom Jules Balde duñ ma wax doo dugg bu doon ñoom Ama duñ ma wax doo dugg man bu ma ko champion waxoon mu métti ma mais ña ma ko wax dag aayul la dagaan yaa mais damaa baax ñëpp Pikine man sama waa lañ gën ñu maa bëgg Pikine man damaa bëgg pikin pikin bu nee la pikinité rek da ngay xam gelu pikin sax boo ko gisee si mbedd xam ne kii gelu pikin la hop hop hop hop loolu yàlla may na leen ko te pikin bari nay champion booy ñaa nga fa ba kii euh, Ama Baldé nga fa Eumeu Sène nga fa Tyson fa la newoon Baboy fa la newoon booy pikin boo koy lim daa bokk si làmb ku leen bañ seen fulla ak seen fayda nga leen bañee mais ñoom tamit nañ bëgg nit ñi te xam ne ñoom it nit ñi dañoo am wàll seen fi na dëkk nañu yaatal ñëpp parce que ñii ñuy leen waxal waroon naa jomb si ñoom dëgg neexul ñaata nit a fi def open press mos ngaa dégg ku naan dañ ñoo génne ñoom bu ñuy dem open press gars yi ñoom nañ leen sóoraale tey bu làmb amoon open press man su ma amoon open press am naa ngoru naan gars yi du ngeen dugg na si gars yi bàyyi xel bàyyi gars ñu liggéey parce que man damay liggéey ci làmb man nee naa la ñaruma ñaan yàlla di defal mot loolu leen yàlla ma yàlla rey parce que dara jaralu ma ko man ma tiim mbër mi nii mu leer ma ne maa ngi pièce ma ko def xam naa li si làmb lépp bu ma neexoon foofu laay féete kenn du ma feeñ man yàgg naa nekk si làmb kenn xamuma dugg stade te du ma dagg billet léegi la ma jafe mais bi ma nekkagul si site damay dugg nice te kenn du ma laaj dara mais tey jii dama am tur mais tur boobu la ñuy xool lamb la la lamb fan la bokk lamb kii la faral ak kee faral waaw bu dee man damaa faral nit rek ma faral lu ñoom ump na leen mais ku xool ni may liggéey xam ne ñëpp laa yemale waaw. alors am na solo macha allah analyse bi pertinente na alors nga tàggoog mbokk internet yi lay naa su ma continuer moom boo moytul moom danga may jox ku. waaw ñëw de que boobu léegi maa ngi dóor waaw bëgg lu neex fan si la rek mais mais mais du yow yaa xew rek loola neex nga def yaa moom dëkk bi ku judd nga tam ko dëmm bu yàggee ñu wax ak yow xaayaan ku dégg séeréer booy nañ jàppe ni man damaa war yaatal gars yi ñu xam làmb ji war naa saf Dakar wala saf na lingoom mais làmb ji ma teg moom lingoom la boo ko lekkul sax buñ ko daggee sax xel di ko tey boo demul stage sax bu nee na tey la làmb ji boo xëyee rek nga xam ne yàlla am nay gan wala bu ngoon jotee di ne an nit ñi damay ragal sax bitig yi tëj la amoon ci Tyson Manga bitig yëpp tëj ñëpp xaar làmb ji loolu moom ragal naa ko ndax lamb ji bu tasee xaw ma koy lal waaye am na ñu bëri duñu lal. mais violence bi dañoo gis ni dafa bëri surtout keroog parcelle dañ doon agressé si mbedd mi comme nu mu leen noonu boo ko yoree dox da ngay geesu. sinon ñu yow war moto daal koy romb teggi ko mën nañ kaa tegg kooku bopp ba yoru góob dinañ ko rey ñaar yi kenn du ko def sa loxo di mucc teggi keroog ak foq mbaxana jàmbur boo ko defee deeyaale loxo yaa fi mën parce que loolu du si xam-xamam du si lu mu ne loolu suñu borom moo ko bëggul si nit mi ngi mel ne nit di dox nga xëcc tubay ji mu def yaramu neen loolu baaxul ne ko ñëpp bàyyi xel parce que loxo mooy gën loo gis ndax boo ko xëccee sa loxo bara ngaa dee mu neewi boo ko conseil supporter rek. waaw mook mook mook nit di dox nga laal loo yem soo ko defee nit day tàq sa kaw ne la loo may laale mën nga ko laal fu ne du mer mais nit bu doxee boo toppee rek ne laaloos loos bi commencé naa gis boppam waaw nit mën ngaa laal bi sax mu ne cëndam mooy foq mbaxana ak këf ko mais ki nga xamante ne daa yàqu ba pare moom moom du bëgg kenn ku yaa ku baax tey mën naa see joxe xel ñu ne kii dafa soof soofu ma de dalaa dalul waaye bu daloon sa mbokk wala mu dal keneen di nga xam ne siif yëfi jàmbur neexul waaw di nuyu ñëpp di masawu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu sama benn booy Mor Nguer moo ma indi noonu borom borom kenkaay borom kii bi borom pièce détachée bi ak ak Talla ak ak Ibrahima Ibu ay ndonga ah ñun ba lañ ne waaw di nuyu képp kuy safoor làmb nuyu na la képp kuy safoor rek am pois lourd wala transport wala jigéen moo xam jigéen moo xam ndaw laamu nii la te xam ne laamu safoor la doomu safoor la te tamit àdduna yàggul waaye fi la ñuy liggéey àjjana fi la ñuy liggéey sawara kon kenn ku si boo si nekkee amal fayda liggéey sa bopp ba kenn xamante ni doo rus ku la sa fekk du la yedd te loolu lu am solo la Sénégal nag bu ne dañ laa mën a waxal booy wax waxal loo xamante ni ku si jaar xam ne gone lay topp duñ gaañu du ma ne kenn bul ñëw de gone nee na man la ñuy topp mais gud gud gud gud làmb rek god go god go god god loolu da nga koy bëgg a dégg si stade bi làmb rek la ñuy topp ah god go god go god god loolu ngay wax du Dakar plus waaw Dakar plus mi ngi si temps parce que li gën a seer si mango yi mi ngi koy jënd fu làmb la dugg tey jii ak naqaree xam bi ma lay fekk fii sonnoo si buntu bi waaw ma ñëw ak foo xamoo sax fu ma jóge ma njëkk-jëkk rek ñëw sax waaw site bi dem loqati ko kon boo yéen yéen a ngi def jéego parce que borom site bi tamit moo si war a xam xam ne yéen a ngi si yoon bu ngeen bàyyee bu ngeen bàyyiwul jàpp ko fii mun ngeen am lu ne parce que woote bi yar am na si ñëw bi tranquille am na si mais waaw Ibrahima laa kooku xaritu yàlla la moo tax mu noppi yaru parce que Ibrahima lu mu dund bénéfice la parce que caméra am bokkut ak caméra gars yi gis-gisam bokkut ak gis-gisi bi ma ñëwee rek mi ngi commencé jël ay image yoo xamante ni kuy liggéey kat koy def ku du liggéey bu ñëwee day énervé wu buy génne saag bi day mel ne lu taayal nga xam ne kii bëggul li muy def mais xoolal bi mu ñëwee ba léegi mi ngi orienté nu mu baaxee di xool ni muy baaxee loolu mooy caméra bu ko defee du fàtte te tamit li muy dugal dina ko xam mais nit bu jàngul nga koy jox ay kisit yaa ko sonal sonal Ibrahima. kenn du Ibrahima si mim réew. alors Lambalogue maa ngi lay gërëm bu baax a baax ci disponibilité bi di gërëm également ki nga xamante ni moom moo di sama PDG di sa PDG euh, di abo borom seen lamb TV euh, di ko wax ni ko kontaan naa bu baax a baax yow tamit kontaan naa ci yow bu baax a baax di kontaan ci mbokk internetu Dakar plus euh, di kontaan ci ki nga xamante ni moom la àndaloon muy Ibrahima Faroso mu Serigne Sali moo leen nekk leen ci micro bi di leen jox di daje yeneen invité yeneen émission incha allah d'ici là portez bien restez escortés sur le programme de Dakar plus lamb